Ibrahima Fall baat képp soxna maam Oumy Fall bintu maam Cheikh mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di siyaar bu baax di leen daral bu wér a wér fii ci plateau Bichri TV fii si états man la soxna Fallou Waaj moom soxna maam Oumy Fall bintu maam Cheikh Ibrahima Fall fas yéene dalal tey jii sunu baay bu baax bu tedd lool muy sëriñ Ndiaga Diop Baye Fall mu war ñoo waxtaanal tey jii nag ci lépp loo xam ne nii rek jëm na ci ak taalibe ci maam Cheikh Ibrahima Fall akuk taalibe bismillahi rahmaani rahim barke maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Ndiaga ñu ngi lay siyaar bu baax di la màggal bu wér a wér aousubillahi <coughs> min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim jërëjëf soxna Fallou maa ngi lay nuyu di nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu mbokki taalibe yi teewlu jotaay bi bu baax a baax a baax di leen siyaare di leen sargal di leen ñaanal di sàkku ci ñépp ñaan di ñaanal waa télévision Bichri bi ci tàmbali ba ba ci suuf ci cër bi ñu jox Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina ak xam guñ ko xam di ñaan yàlla barkeel liggéey bi te boole leen ci ñi nga xam ne Serigne Touba day nangu seenub liggéey soxna Fall yow tamit ñoo ngi lay sant bu baax di la gërëm ci euh, woo di ñu woo tey dina def loolu loo xam ne neex na lool ci sunu xol Euh, te loolu képp moonu tax a jóg muy waxtaane ak leeral ak soññe ci mbirum ki nga xam ne amuñu lu dul moom muy Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina kon mbokk jullit ji euh, niñ ko xamee ñi ngi nag ci émission boo xam ne tey jii nag lañ ko tàmbali waaw am ci mbégte lool di ci dalal sunu baay jii nga xam ne saa yuñ ko gisee ñi ngi sàkku ci moom nu ñu mën a xamee as ci maam Cheikh Ibrahima Fall ngir mën kaa doxe émission bi nag mu ngi tudd bëgg gëm jëf muy ñetti baat yoo xam ne nii daanaka buñ koy jéem a xool nu mu demee noonu rek maanaam suñu xel day daal di dem ci maam Cheikh Ibrahima Fall ndax boo nee bëgg xam nañ ne moom rek la te moom rek la def sëñ Bamba Xaadimu Moustapha yaakaari jaam ñi boo nee gëm gëm rek la def Cheikhul Xadim boo nee jëf xam nañ bu wér a wér la mu jëf kër sëñ Bàmba ndax la mu jëf moo tax tey jii ñépp gis tey jii nu maam Cheram Fall taxawee ci yoonu lislaam yoonu muridulaa tey nag ñu bëggoon balaa ñoo tàmbali dara rekk ñu laaj suñu baay bu baax bi mu wax ñu ci bëgg gëm jëf bismillah mm-hmm. Mm-hmm. jërëjëf soxna Fall mm-hmm. euh, dafa am loo xam ne ñetti tomb yooyu ci la sëriñ tubaa daan waxe sëriñ tubaa saa bu daan wax ci ñetti tomb la daan wax Cheikh Ibra tamit jëfam yëpp ci ñetti tomb yooyu sëriñ tubaa daan tomb ci lay wax ah, loolu la tubaab di wax triptyque triptik mooy ñetti tomb ndax dafa bokk ci pédagogie bokk ci xeetu jàngale booy jàngale bu mu ëpp ñetti tomb ndax yàlla lépp ñetti tomb la ko def muy tey ak barsàq ak ëllëg kon nag ñett ci la lépp tënku ah, gisuloo ñu ne asamaan ak suuf ak jaww ji mhm. loolu moo tax nag ñett ñooñu moo ëmb lu baax ba àdduna soso ak léegi lan moo tax nag ñu tuddee émission bi bëgg gëm ak jëf mooy Cheikh Ibra Fall Baabul Muriidiina moo wax Baye Cheikh Ndiaye daabaay ma fekk ko ca dëkk bu ñuy wax Ngaye laaj ko ko mu ne ma sa maam Seex moo ma ne muy lu wér ndax addis yi nga gis ñuy wax yépp kenn ku ci fekk yonent bi amul dañ naan jëli nañ ci diw mu jële ci diw mu jële ci diw kii may wax nag Seex Ibra ko yar ndax nee na ma maag Sëriñ Asan Fall ñoo bokk genn guddi gunu gane jamono radiyallahu anhuma ah mu ne nag Seex Ibra moo ne ba muy jub Mbàkke Kajoor dafa dégg malayka yi naan bëgg gëm ak jëf kon euh, kaddu yi ñu tuddee émission bi ay kàddu la yoo xam ne bindeef yi gën a sell ci bindeef yi te duñu mooy yàlla mm-hmm. la leen yàlla digga rek lañuy def moom malayka yi ci la jóge Cheikh Ibra ko wax ne malayka yi laa dégg ñu tiim Serigne Touba naan bëgg gëm ak jëf nee na ma xam ne kat li muy wut si yëpp ñett yooyu képp moo ma ko mën a may mm-hmm. neena nag ba ma ñëwee nag ma daal tàmbale ci bëgg jàngal nit ñi ni ñuy bëggee sëriñ bi ba ñu xam ko ma jàngal leen ni koy gëme ba xam ko ma jàngal leen ni koy jëfalee looloo indi bëgg gëm ak jëf mhm. te boo seetloo la ko tàmbale ci sunu maam aadama ba ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mujjee ñëw mhm. ñett ñooñu yonent bu masa woo nit ñi ci nga leen woo wàlliw bu mës defar nit ci ñett yi nga ko defar wàlliw mënulaa defar te bëggoo ko mënulaa defar te gëmoo ko mënulaa jox dara te jëfaloo ko dara ab yonente tamit boo ko bëggul boo boo ko bëggulee doo ko topp boo ko gëmulee mhm. li muy wax doo ko jëf su santaanee defoo ko it li yàlla diggee doo ko am mhm. kon loolu mooy tënkub bëgg gëm ak jëf te seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkumullah in kuntum bu fekkee nekk ngeen tuhibbuna di bëgg allahu yàlla xam nga mooy bëgg mhm. mu ne fattabi'uni topp leen ma ndekete bëgg dafa ëmb topp moo tax sëñ Tuuba wax ne law kaana xubbaka saadixan la ataxtahu inna al muhibba liman yuhibbu mutii'u fekkiwaat loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax sëñ Tuubaa nee na mhm. sëg bëgg bu dee dëgg mhm. da ngay topp li nga bëgg ndax aju bëgg bi li ko jëkk dëgg dëgg li muy jariñoo dëgg dëgg mooy topp ki mu bëgg te yonent bi moo ne bu ngeen bëggee yàlla topp leen ma yàlla bëgg leen kon bëgg gëm ak jëf mhm. mooy ñett yi nga xam ne moo tënk àdduna ak barsax ak alaaxira moo tënk diine ba diine sosoo ba tey moo tënkit yoonu murit ndax yoonu murit tënkub li fi jaaroon yépp la kon loolu mooy tur émission bi ñu kon ñu ñaan yàlla barkeb ñetti yëf yooyu mhm. nekk ci ñun ñëpp nekk ci ku ko déglu ci barkeb ka ñu bëggoon muy yàlla barkeb ka ñu gëmoon muy suñ borom barkeb ki ñu toppoon muy suñ borom muy Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Ibra mhm. ñañ topp ka ñu toppoon ak ka taxoon ñu jënd fa nit ñi mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak lislaam kon jërëjëf loolu moom moo doon turu émission bi mhm. muy turu wu barkeel yàlla na turu wuyu borom te euh, law ci télévision bi ak ñun ñëpp waaw kon de mbokk taalibe yi euh, dégg nii ñu ko déggee nii mu ko waxee nii am na solo lool tey it njariñ képp la ndax it télé télévision bii di Bichri TV njariñ moo ko tax a jóg njariñ li nag jëmul fenn fudul ci lislaam ndax ay jullit lañ doon ay murit door a dooni Baay Faal kon toppante boobu maanaam jëf ju ci nekk dafa war a wuju wuyu maanaam ñetti tur yooyu bu ko defee nag euh, émission bi comme ni ko Baye Ndiaga waxee rek bëgg gëm jëf ndax it bu ñu seetee masalan ci exemple bu ndaw rek maanaam ñun ñi bu fekkoon ne bëgguñu maanaam maam Cheikh Ibrahima Fall daanaka du ñu jéem a bëgg googu du ci du du du tax ñu gëm ko buñ ko bëggul woon duñu ko gëm wala ñu koy jëfal ndax fii ñu toog nii bëgg gi lañuy lañuy la njëkke ndax bëggloo nañu boppam gëm nañ ko lool nag waaye moo taxit ñuy jëf lii tey kon nag ñi ngi ñaan ci jëf gii ñu koy jëfal ñu ko bàyyi njega ñaane yàlla nañ ci maam Cheikh Ibrahima Fall kattanal ba ñii ñuy waxal muy yéen ngeen am ci njariñ loo xam ne nii àdduna ak alaaxira la kon nag tey jii émission bi première émission bi la ñu war cee waxtaanee ak taalibe maam Cheikh Ibrahima Fall ak taalibe taalibe nag daanaka dafa ëmb lépp waaye dafa muur lépp it ndax ab taalibe dong ci ni ma ko xamee sama xam-xam bu gàtt rek mooy ne muur na daraja yépp ndax ni mu koy muuree ak taalibe nit koo xam ne nii am na taalibe fu muy doxee ak taalibeem doo gis ak am alalam doo gis lenn àdduna loo xam ni wala ay jikkoom doo ko gis ndax taalibe gi muy fësal mooy tax taalibe nag ci niñ ko jàppee rek mooy ki nga xam ne topp na ci tànki maam Cheikh Ibrahima Fall ndax ci ni ma déggee mag ñu baax ñi wax moom moo ñu jàngal ak taalibe waaye léegi kon ñu doon laaj suñu baay bi lan mooy ak taalibe ok jërëjëf soxna Fall ñoo ngi santaat bu baax mm. euh, di xamle ne euh, sëñ Moussa dafa wax ne bi Cheikh Ibra Fall génne àdduna làqu suñu bët dafa waxoon ne ka xamoon ak tarbiya ka xamle woon ak tarbiya ak ka xamoon ak tarbiya moo bu ñu demee ba surga ya ku leen di wax naka pexe ka ko xamoon ak mhm. ka ko xamle kon loolu sëriñ Moussa Ka c'est une voie kon wane na ne Sëñ Tuubaa moo xamoon luy tarbiya waaye Cheikh Ibra moo xamle luy tarbiya tarbiya mooy yar mhm. yar ci turu diine yar ci turu islaam mhm. yar ci ni ko islaam bëgge yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne innama bu'istu li utammima makaarimal axlaax dañ maa yónni ngir ma mottali jikko yu rafet yi jikko yu rafet yooyu nag kon nekkoon na fi mhm. di diree ko ba sallallahu alayhi wa ñëw mottali ko kon matul woon bi mu ko mottalee nag mhm. Sëriñ Tuubaa ñëw di yeesalaat jikko yooyu yëpp mooy lu jëkk la mhm. ak li yonent bi mottali ñu dem ba jamono jàpp nit ñi ba ñu fàtte jikko yooyu ak mele yooyu te mooy lislaam dëgg-dëgg loolu la Sëriñ Tuubaa ñëw di ko yeesalaat ànd ak Cheikh Ibrahima Fall mu duñu wan jëf ji mhm. loolu mooy ak taalibe ak taalibe mi ngi tàmbale ci tey jii koo ko wax day daal di defe ne lu yomb xam la ndax dongo yëpp koo ci gis defe na ne xam nag taalibe ba mu mat te ak taalibe kenn du ko xam ba mu jeex ndax xam nga lu tax mm-hmm. yoonu yàlla la mënoon nga firee ak taalibe sax siraatal mustaqim mooy yoon wu jub wu jëm suñu borom lu tax mooy sëriñ Touba wax na sëñ Mortala Fall ne ko sa borom nee na lii ma la jox nga fas ci li nga bëgg muy bëgg a fas mu ne ko bàyyi sax ma fasal la ndax yéen ku leen fasloo saa bu ngeen ko saa bu ko feccee mhm. ay xàndeer rek la ciy fekk bàyyil ma fasal la li dul fecciku te gën àdduna ak muy ak taalube nee ko fasal naa la ci ak taalube kon mhm. ak taalube mooy li gën àdduna gën àllaaxira loolu nag fan la tàmbalee mhm. mu ngi tàmbalee ci bi sun borom bindee jaam yi bind malayka yi hmm. bind jinne yi bind aadama bi mu aadama dafa ne malayka yi sujjóot leen ci aadama ñu sujjóot ñoom ñëpp wa iz qulna lil malaikati isjudu li aadam fa sajadu illa iblis aba wastakbar wa kaana min lan moo jëkk mooy bu ko tàmbalee ci sun maam aadama tàmbale ko boole ci jinne yi ak malayka yi malayka yi ñoom benn melo lañu am duñ mooy yàlla mukk jaamu yàlla ci hayla la ak tasbiix ak takbiir muy allahu akbar ak laa ilaha illallah ak subhanallah rek la ñuy liggéey moo tax balaa may dugg ci ak taalibe fan la jógee sëñ Modou Moustapha Fall daa mësa Euh, ku baax moo ma ko nettali da leen a romb ak seen jëwriñ ci daara ji nuyu leen mm. ne jëwriñ ji ne ko waaw koy faal mu jàll dellu si nuyuwaat leen jëwriñ ji ne ko waaw koy faal booba ak taalibe du gis sëriñam rek waaxu nuyu ko jëwriñ na ma koy nuyu ne ko demal nuyoo wala bu jëwriñ ji nuyoo rek doy na te yooyu yëpp dañ ko war a jàngataat bu baax a baax a baax taalibe gi léegi mm-hmm. kenn ku ne da nga ciy wéyee sa xalaat waaye nag ak guñ ci jëmmi taalibe gi fa mu jóge la ñuy waxtaane mm-hmm. mu ne leen dama dégg seenu jëw yéen taalibe yi pour ngir dama lay andil rek doole yi ak taalibe mooy lan mhm. mu ne leen malayka yi ñu ngi leen di jëw ci kaw asamaan yéen taalibe yi malayka yi nee nañu mhm. ñoom duñu lekk duñu naan duñu nelaw duñu sonn xamuñu mooy yàlla xamuñu bànneex xamuñu dara yàlla rek lañu xam ci li xëy ci li ñuy gont ci seen lépp loolu la am na nag ñu ne ñoom am na ñu ne ci kaw suuf ñoom dañoo boole di sonn di nelaw di lekk di denc ay soxna di bëgg alal ba noppi te ñun malayka yi li ñu jaaxal mooy ni ñu yàlla binde moo tax ñu jekku ndigal te ñooñu noonu la ñu jekkoo ndigal ñi ni ñun boole ko coono boobu leen yàlla teg ak natt yooyu mu leen teg muy taalibe yi ci kaw suuf muy murit yi mm. suñu mën Moustapha ne leen malayka yi dañuy jëw murit yi ndax ni ñu déggee ndigal ni malayka yi xam nga malayka xamul lu dul ndigal mm-hmm. tax nag suñ borom baatu ndigal nga xam ne moom mooy ruuxuk taalibe moom moo tax ñuy wax ak taalibe mm. ak taalibe nag ay yar ak i teggin yooyu yëpp ci la bokk soobu yàlla bu ñu demee ba ci kanam danañ ci mm-hmm. waxtaan ci émission bi waaye mm-hmm. euh, ak taalibe mm-hmm. noonu ma la ko waxee ci njëlbeen gi mi ngi jóge ca aljanna bi sun borom bindee aadama ne ko yaa aadama uskun anta wa zawjuka aljanna fa kula minha raxadan xaysu situma wala taqraba hadihi sajara fa takuna min azalimin bi mu bindee aadama lim ko jëkk a def mooy digal ko teral ko digal ko te doomu aadama yëpp yàlla da leen teral ginnaaw ba mu dugalee suñu maam àjjana dafa won ne doomu aadama teraanga tax ñu bind ko hmm. waaye nag teraanga ji lenn rekk ay tax mu mérité ko mooy luñ ko tere mu bàyyi ko moo tax mu ne ko aadama dëkkal ak sa soxna xawaa àjjana hmm. lekk leen lu leen neex waaye nag bu leen laal garab gi loolu misaal la waxin la mooy tere ak digle boo gisee Cheikh Ibra andi ko wax ne ku xam ci yàlla loo xamul lu mu la digal def ko lu mu la tere bàyyi ko ndax dafa am aaya alquran wax ne asa an takarahu shay'an wa huwa xayrun lakum li waral ak taalibe laa lay wax mhm. bari lu ngeen bañ te moo gën ci yéen wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum bari na lu ngeen bañ lool te moo gën ci yéen wallahu yaxlamu wa antum la taxlamun yàlla moo xam yéen xamu leen Cheikh Ibrahima ne kon lu ciy pexe ginnaaw doomu aadama yàlla waxal na ko boppam ne ko léeg mu bëgg dara te du te du baax ci moom léeg-léeg mu bañ dara te moo gën ci moom yàlla xam te doomu aadama yi xamuñu kon doomu aadama yi lu ñu war a def làqu ci ku yàlla xamal def li ñu war a def seen digganteeg moom mu di leen wax li yàlla bëgg xam nga loolu bokkut ak sharia bokkut ak li ñu war a jaamoo yàlla lii ay dogali suñu borom yi la ak ay pexeem lay wax noonu mhm. léegi nag kon nag tere ak digle mhm. Cheikh Ibra mu ngi ko jële ca foofa ca sun maam aadama ba ko suñ borom teree moo tax ñuy wax mu murit déglu ndigal bàyyi tere xam nga loolu la ñuy wax ne mooy ak taalibe bi mhm. waaye nag déglu ndigal bi mu ngi tàmbalee ca malayka ya ndax malayka yi yàlla da leen a digal ñu def ko ba mu des kenn la ko dal nag mu ngi ko topp ba tey te def koy topp ba faw mu iblis ah, is juddu su jóot leen fasa jëddoo ñu su jóot illa iblis ba mu des iblis te ak taalibe mhm. li ko tax a am solo mooy loo xam-xam-xam-xam am na xam-xam bu bu la féete kaw loo xam-xam-xam suñ borom mënuloo ko xam lépp léegi nag moo tax nag suñ borom bëgg képp koo xamante ne kii xamal na ko nga topp mu koy xamal mooy li sëñ Tuubaa ne allamani laahul aliyu min ma yashaau min ulum man de yàlla mi xam xamal na ma dégg nga de mhm. yéen xamu leen yàlla xam na sëñ Tuubaa yàlla mi xam xamal na ma mi ma yashaau ulum lu ma soob ci xam-xam yàlla xamal na ma wa zabba xitli bil kulum mun sarifan bi saxali kon ak taalibe ndigle ak tere Cheikh Ibra Fall mu ngi ko jële ca malayka ya ak aadama ak la daloon iblis mm. la daloon iblis lay bañ mu dal ñu muy réy aba wastakbar mu ngi ko jële foofu boo gisee mu andi ak nangu Cheikh Ibra andi ak ñàkk réy ñaari jikko yooyu la yàlla gën a bañ te moom la xase iblis ñaari jikko yooyu la ak taalu bi di jëkk dind ci nit Cheikh foofu la ko jële su jot bii ñuy su jootit foofu la ko jële ci sun moom aadama ndax boo demee ci téere ndax ñu baree ngi wax ci diine fi nekk ne defe nañ ne lu nekkul ci téere rek du dëgg te loolu xam naa ne beneen débat la beneen waxtaan la waaye yàlla li mu yor yëpp dafa ko ci téere yi mhm. yàlla moo ne fépp mooy lépp kon yàlla ëpp na téere téere nag daf ñuy tegal daf ñuy misaal yoon wu ñuy aw ba dem ci suñu mhm. kon suñ jàngalekat bu mag boobu ak taalibe mu ngi ko jële ca ba ñu bindee aadama ak ba ñu diggalee malayka yi ak ba ñu teree aadama mhm. diggante digle ak tere foofu la foofu la jële ak taalibe su jot tamit Cheikh Ibrahima nee na foofu laa ko jële te tey tey jii boo demee ci ñi jàng dañuy wax ne. Mhm. su jootal nit daa aram te xanaa gisuñu yaxu alquran bi Cheikh mhm. su jootal nit aramul is juddu li aadama su jot leen ci aadama aadama nit la. ñeneen te kat ñoom ñu ngi koy jàng bés bu set te nee nañu su jot daa aram su jot ba araama defal nit. loolu mooy sujjóot bi ñuy sujjóot ci julli sa cër yëpp maase nga mm-hmm. jël sa jël teg ko ci suuf kooku yàlla rek ko jaloon waaye sujjóot bee boobu julli xewagul waaw loolu moo tax nag Cheikh Ibra Fall ñu bari dañoo defe ne ak taalu bi dafa ñëw rek andi aw melo noonu rek te dafa wax ne ba jamono sosoo ba léegi lu fi baax mm-hmm. laa dajale loolu mooy ak murit moom laa leen jàngal mm. est-ce que ah moom <laughs> leer na lañ di xanaa man mii toog di wax dëgg yàlla mm-hmm. yokkaat naa bu wér a wér a wér ak taalib bi moom daanaka tey bu ñu toogoon rek di wax maanaam lan mooy ak taalibe maanaam duñ fi jóge daal mm-hmm. ndax la mu ëmb moo bari te mm-hmm. daanaka ni ko bàyyi waxee rek lépp lu baax la ëmb lépp loo xam ne nii ay teggin la muy yar ak teggin waaye nag dafa am wax ju ju am solo lool joo si wax ju ma xaw a bàyyi xel muy ne mhm. ndigal mhm. maanaam mooy ab taalibe dëggi dëggi taalibe mooy wéy ci ndigal mhm. waaw ma bëggoon nga ñëwaat ci tuuti ndax suñu mbokk yi ñuy door a dabaatal mm. waaw wéy ci ndigal dafa am sax lu ko gën ci taalibe mooy bàyyi tere moo jëkk nit ñi dañ ko wëlbati mm. daal di ne wéy ci ndigal bàyyi tere waaye dañ ne woon ne war ne bàyyi tere wéy ci ndigal bàyyi tere moo jëkk ndax ñun aadama ñun suñ maam aadama dañ ko tere woon rek kenn digalu ko dara dañ ko teral tere ko malaayka yi lañ digaloon hmm, ñu si ñu si jot mais moom aadama kenn digalu ko dañoo digle woon ci moom muy muy wax ju loxo nag ju xóot dañoo digle ci moom waaye kenn digalu ko dara de dañ ko teral rek ne ko àjjanaa ngi nii lekkal lu la neex naanal lu la neex yàgg sa soxna fu la neex demal waaye bul laal garab waaye bàyyi njëga euh, maanaam bàyyi lii mhm. maanaam bul laal këfin kii mhm. maanaam loolu ndigal la mën nañ kaa woowee ndigal wala bàyyi tere maanaam luñ ko mën a woowee bàyyi tere la bàyyi tere la waaw bàyyi tere la yàlla gën soxla sax ci nit léegi nag jullit ñi ñu ci ëpp dañ def def ndigal mhm. rek moo am solo moo tax ngay gis si suñu réewum Sénégal jullit ëpp li yàlla digle yëpp dañ koy def waaye li mu tere yëpp dañ koy def hmm. ndax njuumte gu am mhm. ci loolu te li war a jëkk mooy nga bàyyi tere jëkk soo ko jëfee ndigal yim la jëfe yim la sant mhm. loolu moo tax nag loolu lu mat la ci jamono ji mhm. ndax da gis koo xamante ni ki wóor na ko ne li muy def lépp yàlla da tere waaye nag mi li yàlla digle yëpp mu ngi koy def mooy jëkk ca jàkka ja dina woor mhm. dina julli dana natt asaka dana dem màkka waaye mooy yàlla gi yàlla tere du ko ba du bàyyi fen du bàyyi rambaaj mhm. du bàyyi kiñaan du bàyyi wor mhm. du du du bu ko neexee dem ci njabarkat yi jabar doomu aadama ba mu yàqu te teewul li yàlla digle yëpp mu ngi koy def li tax bàyyi tere am solo mooy soo bàyyiwul tere boo jëf ndigal yàlla du ko gis. est loolu moo tax bàyyi tere moo jëkk gisuloo moo gën a jafe. Mhm. bàyyi tere moo gën a jafe def ndigal. est-ce que moo tax Cheikh Ibra ne da ngeen di bàyyi tere tey jëf ndigal yi bu ko defee nag dangeen di mucc àdduna ak alaaxira waaw. yi kon day leer na nañ de moom day kon ñun murid yi ñu jéem a góorgóorlu bu baax rek ci bàyyi tere yi ba pare mhm. ndax daanaka ni mu ko waxee nii am na solo lool jar naa leeral ci jamono ji ñu toll mhm. ndax murid yi koo ci woo ci ndigal mhm. Cheikh Sidil Almaxtaar ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér moom ak sëñ Cheikh Jëmb Fall ak mboolem magum taalibe magum Baay Fall waaye maanaam bàyyi tere daanaka ci ni ma ko jàppee rek bàyyi njaga mel na ni sax dina raxas say jikko mel na ni mooy raxas say jikko mm-hmm. ndax fi mu ne bu fekkee ne yow da ngay jëfal sëriñ bi mm-hmm. te am ba tey nga am jikko yoo xam ne ni da nga kaa làmboo mm-hmm. daanaka jikko yooyu mën naa feeñ ci sa liggéey ba yàqal la sa liggéey sëriñ Tuubaa kat dina jël bépp jëfut di waaye ci kaw ñu sellal ko sellal ba nag day fekk nga sellal sa jëmm ji ba pare sellal ruu gi sellal xol bi ndax loolu da cee am solo lool kon nag Euh, moom day xam naa ne kon comme ci maam Cheikh Fall ak taalibe la. waaw léegi ñu bëggoon a xam. waaw maanaam ndax xaw ngaa jot leeral fi mu ko jëlee. Mm-hmm. waaye moom maanaam ci damay dégg ci mag ñu baax ñu ñu naan mm-hmm. maam Cheikh Fall nee na Jibrilu laa moo ko moo ko moo ko moo ko jàngal taalibe. waaw bëggoon ci am ay leeral tuuti. waaw mm. xam nga loolu loolu mooy li ma wax ci njëlbeen bi. Mm-hmm. ne ak taalibe ca malayka yi la ko jëlee kon malayka yi ko jàngal. waaye moom daa wax ne bi mu ñëwee Mbàkke Kajoor mhm. Seydina Jibril moo ko jàngal ak bi mhm. loolu nag soo ko waxee day nuru waxi daanukat waaye nag ni ma koy dëgërale rek mooy xaddisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi dafa wax ne mhm. ci xaddisu Seydina Omar eh, Omar nee na dañoo toog dànd yonent bi dànd giñ ko dànd noonu nee eh, am nee na dànd giñ ko dànd mhm. nee na am ku ñëw koo xamante ne ki amul jeexitalu tukki mhm. ba noppi sel yëre yu set mhm. ba noppi amul coono ci yaramam nee mu ñëw di laaj yonent bi yonent bi di ko di ko tontu waaye nag ñu gis ne lu yonent bi wax mu ne ko wax nga dëgg comme saxaaba yi dañoo ñaw ñu ne waaw kii ginnaaw moom day laaj lu tax muy laaj te bu yont bi waxee mu xam ne wax na dëgg am na foo xam ne bi ñu àggee ci laaj bi sax nee na laaj na yonent bi kañ la bis pénc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ndax kiy laaj gën a xam ki muy laaj nit ñi tàmbali nag di am rey bi di am dug ci kii toog kan la ndax kenn xamu ko ci dëkk bi mhm. ah ba mu jógee dem xam nga la mu ko laaj yëpp buñ ko bëggoon wax fii tey émission bi day jeex mhm. ba mu jógee dem yonent bi Seydina Omar nee na sallallahu alayhi ne leen xam ngeen kii di dem ñu ne ko ah yow mi yàlla yoon di xamuñu ko mu ne Jibril moo ñëwoon di leen jàngal si seen diine kon xanaa bu Cheikh Ibra waxee loolu mhm. diine nangu na ko mhm. xam-xam nangu na loolu Seydina Jibril moo wàccoon di jàngal saxaaba yi seen diine Seydina Jibril moo wàccaat jàngal seexib Ibra Fall ak taalibe ndax kee mooy rasulullahi kii mooy xaadimu rasulullahi mhm. waaw loolu moo tax nag ak taalibe mu wax ne moom sii Seydina Jibril moo ko ne nii la ñuy toogee ci kanamu sëriñ nii lañuy ñuy nuyoo ab sëriñ mhm. bu waxee lii lii ngay wax nee na da doon jiitu sama kanam di ma ko jàngal te nit ñi gisuñu ko kon Cheikh Ibra mhm. li tax kenn xamul lu mu doon da daan gis malaayka yi jaxran moom di gis jinne yi nii jaxran lépp lu yàlla bind da ko daan gis mhm. te bokk na ci ay mayam it da daan ba muy ba muy gone loolu bokk na ci ñi ñi fa mu juddoo ak fa mu ganee jamono fa mu feeñe mhm. ñu wax ne maanaam rab yi lu ñu daan wax da koy dégg te boobu ñëwagul sëriñ ndax mas na dàq kéwél ba jàpp ko li jaaxaloon nit ñi mooy mhm. buñ daan rëbb day bu ñu xësee gis rab yi rek danaan bàyyi leen ma dàq ko ba jàpp lu rab gaaw gaaw lu mu bari bari ay jàdd lu mu mën mën a tëpp lu mu mën mën a yéeg dana ko dàq ba jàpp ndekete loolu day misaal sëñ Tuubaa mu nar a wane li muy naqaree naqaree wane moom moo ko nar a wane ndekete loolu taxoon yàlla may ko co may may uh, maanaam melokaan woowu mus na dàq kiwél ba jàpp ko kiwél bi di yuuxu mu bàyyi ko ñëpp naan ko waaw yow yàpp sa xànc xam nga yaayam dafa bon le mhm. lu mu am mu dem ñu ko ñu sa xànc na ko yàpp saxaan ci yow ngir ref ngir ngir ngir bëgg mu toog fi yow jàpp kéwél ba noppi wàcc ko mu dem mu ne xanaa déggu leen li kéwél gi doon wax bi ma ko jàppee te boobu ci saayir gone la mu ne bi ma ko jàppee dafa yuuxu ne ay nar nañ maa rey tey rek te sama dama doon lekk ngir bu ma suuree sama ween yi am soow ma dem nàmpal sama doom yi nar nañ maa ba noppi sama doom ya tumuranke googu sama doom yi nar nekk nee na yuuxu boobu mu doon yuuxu loolu la doon wax hmm. moo tax ma bàyyi ko ma dem waaw <laughs> léegi nag kooku nag hmm. moo dellu si wax ne Jibril la ko jàngal ak taalibe ku jàng hadis te nga xam ne nit kuy nangu lu baax nga hmm. hadis boobu rek war na laa war ne li mu wax am na ndax eh, Jibril la ñëwoon jàngale ak taalibe hadisu Seydina Omar moo ko andi mu waxaat wax jooju te moom ginnaaw yonent bi ak na Omar ci addis boobu. Mhm. Cheikh Ibra lañ jëggaat ku wax ne Jibril la ma jàngal nangam. est-ce que mhm. waaw moom de mhm. euh, bu ñu amee tuuti seetlu rek maanaam euh, daanaka du waxi waxi daanu. maanaam koo xam ne day wax rek ngir bëgg impressionné kenn déedéet. taxu ñoo jóg. maam a Fall li nekk ci moom li sunu borom tabaaraka taala def ci moom. loolu la ñuy wax. nañ koy waxee nag njagam mhm. borom xel la ñuy waxal mhm. dañ koy jaarale fa borom xel nañ koy xalaatee ba borom xel dégg ko mhm. ndax xadis la boo xam ne bu wér la te ku ko gëstu di nga ko gis parallèlement rek ñu xam ne kon yàlla suñu borom moom mi maye mooy may ñëpp te mayam googu amul fenn fu mu ko mën a yemale amul fenn fu ñu ko yemale ci doomu aadama yi kon ñu santee ko yàlla suñu borom tabaaraka taala doolu ci sant Serigne Touba mi ñu ñëw dimbali si doolu ci nag sant wax dëgg yàlla Baabul Muridiina mi nga xam ne moo ñu wan naka la ñuy jariñoo ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Mustafaa kon nag euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéenay dabaatal émission bi ñu ngi leen di wax ni mi ngi tudd bëgg gëm jëf di ci fas yéene waxtaane lépp maam Cheikh Ibrahima Fall teg ko ci naka la daan doxee ba ñu mën ñun ñi nga xam ne génération Serigne bàmba lañu ñu xam naka la fu ñuy teg suñu tànk ak naka lañuy ñuy doxee ci ak taalibe looloo te waral tey jii ñu invité suñu gan gu tedd gu màgg gi muy euh, Baye Ndiaga Diop mi nga xam ne Baye Fall yëpp dañ kaa naw lool bëgg ko lool ndax it mm, man saa yu mu ko dégloo dina yokk sama taalibe ndax Baye Ndiaga dégg naa ni ak taalibe day màgg waaw loolu ñu bëggoon ci xaw a am tuuti ay leeral. waaw kay <clears throat> ah, alhamdulilah jërëjëf ak taalibe ndey màgg jooju nga wax wax ju rëy nga wax loolu sax taalibe bu ne da ko waroon bind. Mhm. def ko ci boppu lalam ndax ak taalibe mooy wut yàlla te wut yàlla yemul fenn ndax bokk na ci symbole seex Cheikh Ibrahima joxe ginnaaw bëgg gëm ak jëf nee na malayka yi mhm. ñoo ma wax ne ma fu waaye yem yaa fa yemale sa bopp fu waay yem yaa fa yemale sa bopp boo gisee nasaraan yi mhm. ak réew mi ñu ne muy États-Unis boo gisee ñuy jiitu nit ñi ba faw mhm. yeneen xeeti ñoom dañoo taxaw di leen xaar ñoom nag nangu ñoo yem fenn luñ def jàll def lu ko gën loo gis ñu am ko rek ñu ngi jàll te te mhm. te loolu moo war a nekk ci jullit yi jullit dafa war a xam ne yàlla yemul fenn yàlla mën na lépp Mhm. yàlla sañ na lépp dañ koy wax waaye ci biir jëf ji dañoo am jikkoy këllu mbonaat est que xam nga lu jikkoy këllu mbonaat mhm. mooy boo gisee loo xamul rek dugg ci biir këll bi ne cell bu ko defee nag mhm. loolu taxut lislaam jóg lislaam li ko tax a jóg mooy jullit dafa war bis bu xëyee yokku xam nga lu tax nga xam ne ak taalibe li nga ne day màgg sallallahu alayhi wa sallam suñ borom da ko waxoon waxul rabbi nii ilman xam nga yonent bi bu doon yàlla yem na fen yàlla du ko wax ne ko saa boo xëyee del wax yàlla yokk ma xam-xam xul rabbi zidni ilman wa xul rabbi zidni ilman yàlla yokk ma mhm. kon nag xam-xam nga mooy lépp mhm. te ak taalibe mooy xam yàlla ak taalibe mooy bëgg yàlla ak taalibe mooy wut yàlla nooy wutee yàlla mhm. te xanaa balaa ngay wut dara danga koy xam boo ko xamee ba noppi wut ko boo ko wutee ba noppi dama bëgg ñu koy déglu bu baax li boo wutee ba noppi mhm. xam noo koy téye ndax xam nooy téye taalibe bi mhm. ndax ak taalibe kat dafa mel ni urus wala jamaa nga ko mën a misaale soo ko amee soo ko dencul ci coffre-fort def ko fu kenn xamut da ngay xëy rek boo ko tegoon fe ci or boo ko tegoon fii ci mbedd mi boo dellusee doo ko fekk ak taalibe déggoo sëñ Tuubaa ne bu ñu demee bu mujjub jamono seen taalibe da ngeen koy dugal ca bëñ ba ca biir mhm. muy roog seen ngeen denc ko fa ndax ak taalibe loolu moo ko ŋànk moo tax yemul fenn dangay ngay wut rek ba fi sa doole yem ak sa pas-pas mhm. ak sa yitte yàlla fay la lu toll noonu waaye ku la ëpp doole ëpp la pas-pas ëpp la yitte ëpp la yar ak teggi ni tamit moom la muy am ci taalibe doo ko am kon nag mhm. pas-pas yi ak yitte yi ak teggin ak jëf ji ci lañuy ñuy rawante loolu la Cheikh Ibra jàngale kon ak taalibe comme comme barabu Cheikh Ibra la mhm. ñu xamal nit ñi ne ne kenn du ko am ba mu mat ndax ñi amoonu taalibe ñëpp te nekk ci yoonu murid Cheikh Ibrahima ci jëkk moom ci wàllu xam-xam rek buñ ko masaan laaj ne ko ndax xam nga sëñ Tuubaa danaan ah sëñ li ma xam ci moom dafa mel si ndax bu dar ci garab dar ci guy xoolu guy ni mu toll ak ni si ndax tuutee mhm. nee na ndax bi lu la wax ci kaw garab geeg li wër garab geeg yooyu day wax fi mu fi mu dëpp daal la xam kon ndekete ak taalibe ku ci nekk doo doo nangoo ne xam nga mhm. da ngay nangu ne da ngaa toll ci war a xam ba ba ngay wuyu sa borom mm. ndax yàlla kenn du ko xam ba mu jeex kon Cheikh Ibra loolu la wax lool la ci jublu mm-hmm. ak jàngale la waaye jublu ci sax ne xamul dara ci sëñ bi jublu ci lool de moonu gën a xam sëñ bi ñëpp mm-hmm. sëñ bi sax yàlla rek a xam waaye nag moonu gën a xam sëñ bi waaye nee na moom loolu la ci xam day bañ mm-hmm. li dal nit ñi ci jamono ji tey loolu la leen doon moytul da ngay gis ku jàng ñetti xasida dem ñaari yoon ciy tool jàng maraaxib jàng kii rek daal di defe ne léegi ak taalibe ci yow la tàmbalee ci yow la yem te fekk tàmbalee koo sax loolu moo tax nag ak taalibe li nga wax ne day màgg ak taalibe day màgg mhm. yemul fenn nit nag saa boo ko amee ba defe ne am nga ko da gis ku lu ko ëppale ndax kooku moo la ëpp pas-pas ëpp la gëm ëpp la yitte mhm. waaw loolu moo tax nag est yi kon day am na solo lool ak taalibe moom mm-hmm. am na solo lool sax xam naa kon mbokk jullit yi mbokk taalibe yi dañuy dem ci euh, outil jim koom rek maanaam dem ci publicité bi te ñëwaat léegi yaa ngeen jëfati kon euh, mbokk téléspectateurs yi euh, ñu di leen wax rek ne que yéen a ngi ci Bichri TV émission bii di bëgg gëm jëf di ci wax commercial yan partenaire. publicité si ma jógee. waaw ñëwaat nañ ci yow. kon mbokk yi ah, salaamaaleykum di leen nuyuwaat di leen wax ne waa partenaires yi nag ci ñoom lañ jóge léegi di leen remercier bu baax a baax a baax te di leen ziar bu baax. te di leen wax ne sans yéen mënuñoo dem waaye ñu nit mënoo leen dem kon góor jàpp ci góor góor jàpp ci yàlla kon ñi ngi ci émission boo xam ne ñi nga xam ne mbokki téléspectateurs yi yéen a ngi ñuy door a dabaatal ci suñu émission bëgg gëm jëf ñu ciy waxtaanee lépp maam Cheikh Ibrahima Fall te bëgguñoo bàyyi dara ci kàttanu maam Cheikh Ibrahima Fall toog ak suñu gan gu tedd gi di sëñ Ndiaga Diop Baye Fall nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci yoon wi te ñëpp xam nañ ko kër sëñ Cheikh Fall Góor Euh, tey jii nag sunu thème nekk taalibe mu nekk wax dëgg yàlla invité boo xam ne am nañ ci moom wóolite lool ak yaakaar lool ci mu dimbali ñu ci taalibe boobu ba tey nag ñu ciy waxtaan waaye Baye Ndiaga ñu bëggoon a xam ak taalibe ku ci mel ni man mu ñàkk solo mi bu ma ko doon ut maanaam lu ma koy utee su ma ko amee it nan laa koy jëfandikoo waaye ma jàpp ne sàmm gi tamit am na ci solo kon lu ma koy sàmmee. waaw kay jërëjëf loolu nag moo taxoon Serigne rek ñëw. jàngale ni ñuy wute ak taalibe mhm. ni ñuy wute ak taalibe waxoon naa la ne ci alxuraan la ko jële lan moo ci jëkk nan la ñuy wute ak taalibe mhm. pas-pas pas-pas bu dul fecc ku mu maanaam jaayante boo dootul xàcc maanaam day doon lu dëgg loo xam ne li bar sàq la jëm ak yow ak bis penc loolu moo jëkk ci taalibe mhm. waaye képp koo xam ne kay sa pas-pas tolluwul noonu àggul noonu wut géeg yooyu daanaka doo ko mënee noonu ndax doo ko mën a wut ni ko war a wute mhm. kon li jëkk mooy pas-pas xam nga lu tax ma wax la ko mhm. alquran dafa wax auzu billahi min asheytaani rajim wa laqad ahidna ila aadama min qablu fa nasiya falan najid lahu azman mhm. suñ borom daf ne damay dama kóllërenteeg aadama mu fàtte ba noppi amul pas-pas kon fa bu Ibrahima jëlee ak bi ak bi mooy ku dul fàtte sëriñ bi mukk doo fàtte li nga nekk mukk moom ngay tëdde moom ngay yeewoo mooy sa dox duñ la fekk ci lu dul loolu doo wax lu dul loolu doo jëf lu dul loolu doo ko fàtte mukk ci sa jëf ak sa wax mhm. day teewu fi yow toujours nga xam ne moom mooy doon sa lépp nga fayee ko Sëriñ Tuubaa bor bi nga xam ne moom la wax ne billaahi lazi laa ilaha huwa maa ngi jiñ yàlla mi nga xam ne amul buur bu dul moom alkarimul xalim yàlla mooy buur bu tedd bi te lewet xayaati sama dund wa mamaati ak bu ngeen ma noppee gis wa xarakaati ak samay yëngu wa sakanaati ak bu ma dalee maa seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne sama dund yëpp jàpp leen ne benn seconde bu ma ci jox ko dul yonent bi amul sama dund yépp bés bu ngeen ma gisee ma ne tekk tam yënguwuma na ngeen xam ne ñàkk yëngu boobu sax yonent bi na ngeen xam ne sama du sama faatu tamit bu ngeen ma noppee gis buñ leen laajee ana xaadimu rasul comme gisatu leen ma ne leen ma an sayidina Muhammad mu ngi ànd ak yonent bi léegi nag loolu la ko Cheikh Ibra Faye loolu nag la taalibe yi wala fay Cheikh rek ñoom ci maanaam roye ko ci jox sa bopp Serigne Touba ba mu jeex loolu moo jëkk kon kon bañ a fàtte fan na si ñaareel bi mooy sa pas-pas di yokk foo toll sa pas-pas di yokk ab taalibe bu demee ba pas-pasam tàmbalee wàññiku rek na ko wóor ni doxatul te sëñ Cheikh Fall Baye góor maa ngi sant bu baax bi nga tuddee turam du lu du mbirum parti waaye lii may xam ci Cheikh Ibra li may wax yépp moom moo tax. Mm. moo ko def ci man moo ma jox ndigalul wax ci Cheikh Ibra maa ngi koy maa ngi ñaan yàlla mu dolli leeram di mm. siyaare jëwrinam ji di sëñ Cheikh Ndigal Fall. Mm-hmm. di siyaare sama jëwrin ci biir kër gi muy Cheikh Touba Sam ah, boo gisee boo gisee ma leen di kii loolu dafa bokk ci taalibe bi. Mm-hmm. ab taalibe bi day am naanukaay naanukaay boobu nag. su ca naanee ba màndi mhm. dafa war a gore Cheikh Ibra bi sëñ mu bi sëñ Touba jógee mhm. sëñ Moussa Ka dafa daan mu daal di mooy ci Moustapha ngir xam ne am na listifa mag ñëpp dem mu ne fa mosul toxoo ko yox yoxi kon actuellement bi ndekete boo koy wut yaa ngi koy wute pas-pas ak yitte ak gëm ak yar ak teggin mbaa dégg ngeen li ma wax Cheikh nee na yooyu moom ci li ñuy wute taalibe pas-pas koy téye mooy ngor ak way ngor ak way deng nag mooy tax nga téye ko ba du la rëcc ndax gis nañ ne ñu bari dinañ jam fi barab liggéey fa ba am fa yàlla di doxat ci àdduna ba lépp dañ mm-hmm. yàlla nañ ci yàlla musal kon nag wax naa la niñ koy wute wax naa la niñ koy wute ni Cheikh Ibra doon wute wax la boo ko wutee ba am ko nu muy mel ci yow nu muy mel ci yow mooy day def ci yow lépp sëriñ bi ne ci yow ku la gis ngay sëriñ bi soo waxee ñoo xam ne sëriñ bi nga soo doxee ñoo xam ne sëriñ bi nga sa lépp di sëriñ bi loolu lay def ci yow te ku sa lépp di sëriñ bi sa lépp di yàlla mm-hmm. te ku sa lépp di yàlla sa lépp di ngërëm te sëñ Tuubaa nee na ngërëmal yàlla moo gën ñu jëloon àdduna ak li ci biiram jox la ko kon buñ ko dee tënk ak taalibe mooy makaarimul ci yu rafet xam nga yar beeg teggi nii ci la ndax jamono ji léeg-léeg gis koo xam ne kii dafay bëgguk taalibe lool waaye day manqué yar lool du xam waxin du xam toogin du xam doxin ndax Cheikh Ibra ak taalibe bi mu ñu ko jàngal daf ñu jàngal waxin jàngal ñu toogin jàngal ñu defin jàngal ñu dëkkiin jàngal ñu aw melo wi nga war a mel ba ku la gis xam ne ak taalibe nii lay mel Mm. moo tax nag. waaw loolu loolu mooy loolu mooy ni nga koy amee. Mm-hmm. ni nga koy wute ak itam ni nga koy amee ak ni nga koy téye. Mm. li koy téye mooy xam wax naa la ko. mooy ngor gi. est-ce que waaw ndax ba mu gisul sëñ Touba. Mm-hmm. ngor rek la la fi nekk ñetti at yi ci des ba jóge fa. Mm-hmm. waaye mënoon naa bañ a doon topp kenn ndax biñ ko laajee daf ne ñaar njébbal ñaar la Cheikh Ibrahima daf ne njébbal du jébbalu kese. ndax alquran dafa dafa dafa dafa wax ni ñaar la yàlla di laaj euh, euh, fas kóllëre mhm. ak joxe sa bopp muy waaw joxe sa bopp boo ko defee dangay fas kóllëre kóllëre gi mooy waral li olof di wax kóllëre ginnaaw lay féete kóllëre gi mooy waral bu la kooku wanee ginnaaw nga mel ni jugu fi nga sàmm ko maanaam nga sàmm ko ngor moo koy sàmm ak jom est-ce que ak dëggu ah kon day moom day ah. am na solo lool sàmm gi day am na solo lool nag ndax it daanaka góorgóorlu mhm. ba sunu boroom dimbali la mhm. nga amuk taalibe mhm. ba di ko jëfe maanaam bu ko àdduna bi yëpp doon waxit maanaam jëf ga nga koy jëf sa diggante ak sa borom moo ci ëpp solo waaye nag nanga fexe rek ba sàmm ko ndax it boo yoree dërëm wax dëgg yàlla bëgg kaa joxi sëriñ ba boo ko sàmmul xool poos ba nga koy def boo ko sàmmul bu réeree ñàkk nga àddiya donte am nga yéene waaye nag jëf ja daa mel ni day ëpp kon nag ñu jéem a sàmm suñu taale bi bu baax waaye Baye Ndiaga bëggoon naa ñëw ci xam naa balaa kii bi di euh, mat rek ndax maam Cheikh Ibrahima Fall mm-hmm. ak seex euh, yi nekkoon kër Sëñ Tuubaa képp ku nekk kër Sëñ Tuubaa mm-hmm. dégg naa ci waxi mag mm-hmm. mu ne moom moo jàngal mag ñi nit ñuy bi ko ginnaaw bi ko jibril jàngalee ak taalibe moom moo jàngal mag yi nekkoon kër sëñ Tuubaa Xaadimu Mustafaa ak taalibe ba dégg ci turub sëñ Abdourahman Lo bés boobu nu mu demee waaw xam nga kooku moom dafay dafa war a nokk émission boppam ndax digganteem ak maanaam ñi mu nekkaloon ci sëriñ bi Cheikh moom li nit ki war a xam njëkk mooy nee na benn yitte rek la nit ñi liggéeyal sëriñ Tuubaa nee na bu nit ñi liggéeyalee Serigne Touba moom bañul kenn. nee na xarabul kenn ku liggéeyalul sëñ bi daal la mënta jëfal daal wax ne. Mhm. ñaar rek kay tax nit gi xam sama naqari dara mooy doo fi liggéeyale sëñ tubaa doo fi tudd yàlla. neen ñaar yooyu moom ku ma ko wax dégg ma gis waaye leneen lu ma nit def mën naa ko muñ léegi nag moom li ko li ko soxaloon mooy nit ñi liggéeyal sëriñ Touba ginnaaw mbokki sëriñ bi yëpp nangul nañu sëriñ bi. Mhm. seex yi ñëw nangul sëriñ dëkki murit ñu sos ko mhm. ñuy tarbiye nit ñi di jàng xasida mhm. di jàng alxuraan di yar doomu aadama yi mhm. moom loolu képp la bëggoon moo tax nag ba loolu amee la daal di def ñëpp ñëpp ñuy ay xaritam sëñ Dame Abdourahmane Lo mi nga wax dafa dafa jaxasoo woon ak Cheikh jaxasoo boo xam ne bii te jii du xaj ci émission bi xaritoo woon ak moom ndax bu Cheikh Ibrahima waa ji génn àdduna sax daa daa ñëw daalu alimul xabir daaru alimul xabir dëkkam muy ndaam mhm. bay dugg Touba daan ne ko sëñ ndaam dama woor ba ngoon bëgg a ndogu mhm. ndekete da koy da koy tàggu ndax ñoom dañoo xamoon lu ñuy xamoon dañoo àggoon ci yàlla ba kenn ku wax sa moroom dana xam li nga wax maam Saliou sax rek ki Cheikh Ibra mhm. na yónnee sëñ ndaam Abdourahmane Lo addiye yónnee ko am xar daa ki mu koy ki mu koy ne ko bu ma demee li ma koy wax mu ne ko wax naa ko xar mi. sëñ daam bu xoolee xar mi dana xam li ma wax. ci. rakki moo tax nag ba mu ko waxee loolu ca fan yooyu la Cheikh Ibrahima làqu sëñ daam Abdourahman Lo jàngal na Cheikh Ibrahima téeméeri kaamil bi mu làqu. téeméer xam nga loolu kóllëre. Mhm. damaa déggagul ci diine benn nit du jàngal kenn téeméeri kaamil xanaa day ànd ak mbooloo. moom képp maanaam moo ko jàng defal na Cheikh Ibrahima téeméeri kaamil ndax ba mu ko ne dama woor ba ngoon bëgg a ndogu ci la xam li mu ko wax mu tàmbali kaamil yi bi téeméereel bi mag lañ ñëw tàggee ko ne ko Cheikh Ibrahima làqu na kon defe naa ne loolu moo tax mu ne euh, euh, boo demee ci baax Minanu Baaxil mu sëñ Basiru nee na dama doon waxtaan ak sëñ Abdourahmane Lo mu ne na ma Cheikh Ibrahima Fall alazi yaqumu bi xidmati cheikh wa xidmatil muslimina loolu la ñu bari xamul diirub dundam sëñ daam nee na dafa taxawoon ci liggéeyal yàlla ak liggéeyal jullit yëpp maanaam Cheikh Ibra jublu ci liggéeyam jullit yëpp la ci jublu mm-hmm. wa yajtamiu alayhi abna al umara wa banatuhum addu afa ñi gënoon a naqari repêché ci société xam nga boobu société Sénégal ceddo yi ñu ngi soog a jóge ci ceddo te mm-hmm. lislaam doyagu ndax lañ doon am amuñu ko ci fokk ñu am koo xamante ni kii daa bokk nag daa bokk ñoom ceddo gi ci deret xam nooy naxe ceddo xam noo koy téye foog ñu am ku mel noonu bu dul woon loolu dañuy far dem rek du ñu dugg ci diine Cheikh Ibrahima moo leen naxtaan ceddo yooyu yooyu ñëpp moo tax sëñ ndaam Abdourahmane loo ne wa yejtamiu dafa dajaloo alayhi ci moom mhm. abna al umara buur yu jëkk yëpp seen doom yi bi seeni nguur daanoo tubaab bi ñëw faagaagal leen lislaam ñëw buur yëpp dañoo daw làqu ji ci Cheikh Ibrahima ak seen doom ya mhm. wa banaatuhum addu afa ak seen jigéen ñi nga xam ne dañoo tàmmoon lu neex tàmm xéewal mhm. te amatuñ doole ay mooy lingeer yi mhm. ñoom ñëpp ñu daw dem ci Cheikh Ibra moo tax nga gis ne soxna Gañ Siri Fall mhm. soxna Lalla Fall ñun ñëpp ay ay soxna yu buur la woon moom moo leen mujj jigéen ci soxna Mbenda Fall waaw kii kii kenn ki soxna Gañ ah, soxna Demba Waar la woon denc na tamit doomi Lat Joor doomi Saasi Mbuuj euh, doomi Gédel Mbuuj denc na ñooñu ñëpp te nee na moom daf ko defoon ngir ñooñu am nañu ay vertu maanaam am nañ jikko yu rafet waaye nag la seeni maam daan séq ak sëriñ si démb mhm. daan leen lor mhm. daan leen noot moo tax mënuñoo dem ci sëriñ soosu sëriñu mm. kese yi Cheikh moo leen kii woon sëñ daam moo ko bind mu ne euh, wal muriduuna ahlu tarbiya nee na li ko jaaxaloon Cheikh Ibrahima dafa boole ñooñu nga xam ne kenn xamul ñoom xamuñ ci lislaam dara seen bakkan rek lañu ñu xam mu boole leen ak murit yi nga xam ne yàlla rek la ñuy wut mu ne nag ni leen mënoon a jaxase ci benn kër mhm. te fexe ba ñu bokk benn bëgg-bëgg sëñ daam neen loolu ko jaaxal wa yarxaa kulluhum kulluhum himamuhum ila talaba rida mawla wa daarul mu ne doomi ceddoo yaag ña doon wut yàlla yépp mu bokk leen canaliser ci benn bëgg ñoom ñëpp ñu bokk wenn melo bokk génn bëgg mu ngi wut ngërëmal yàlla ak alaaxira waaw kon nag loolu rek doy na ci. waaw ci nga Abdourahmane Lo est-ce que kay mm. mbokk julli ji salaamaaleykum ah, mbokk julli ji mbokk taalibe yi ah, ñu ngi am mbégte lool wax dëgg yàlla doon taataan ci sunu baay baay Njaga Jóob di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram mm-hmm. mu yàgg fi lool waaw mu yàgg fi lool ñuy gën a mën a taataan ñu nit rek bu soobee yàlla ndax moom xam naa yàggam fi moom sunu njariñ la mm-hmm. njariñu jullit yépp njariñu murit yépp la mm-hmm. kon ñu ngi leen di dox daje ba beneen émission incha allah barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall jaa ngeen jëf bokk jullit yi bëgg gëm ak jëf